jaaro bag de fiançailles bi xoola <laughs> xale yi am feeling am caac te gis nga booy marié wu te munoo ko bu ko def booy marié wu tamit bëgga sa mariage réussir demal laaj ma sa Issa Dieye Fatim Penda ak maa ñaan secret ay surprise surprise saa yu ñu yeewoo moom la gis ci internet bi ci mariage sey Zeyna duur bi maa ngi gis ñu décoré benn saal bu décoré bu xeere xoola non jëkkër ju galan nag jar naa ñaan man moom jëkkër ju galan la am <laughs> sama jëkkër dafa njool ci kaw galan jantale la ilaha illallah jëkkër ju galan playboy moo baax xoola jëkkëru Zeyna Ndour a ngi sañse ba rafet ñëw ndey sàndi ko demandé bag bi bague de fiançailles bi Zeyna sor robe bu rouge bu rafet daa di ñëw rek saan jëkkër ji accolade ko sukk ci kanamam non am na góor ñu galant la galanterie <laughs> xoola nee naa la bañu paree ci loolu da ngeen yaakaar xew bi dafa jeex xew bi jeexagul de faraj la Viviane daal di defaat faraj bi xam nga mooy lan kuram maki ayam daa koy ayam maa koy sama xarit boobu nga xamante ne maa ko bëgg ndax bëri feeb xoola mu daal di ñëw ca mariage ba ànd ak délégation wam ñu daal di fay nemmeeku jibi dramé euh, soxna jibi dramé maman chérie ak ñeneen ñaak ñeneen ña ñu tëgg fa feccu bale xam nga xam nga kuramaki bale la daan fecc bale te moom daa mën a fecc waaye gis nga feccu maki bi naa leen ko mayaat ci taabal bi ba kuramaki duggee fecc bone saay Massa Issa Dieye daal di koy feelu xam ga Viviane moom dafa cekkete ba pare dafa jonge bëri feem ne naa la Viviane ba mu duggee nag mu nga sol tout Bala Ndiaye moom Bala Ndiaye la woote temps yi moom jàmm laa pee la woote jàmm la ma sa sax waaye temps yi da cee raw xoola mu daal di sol Bala Ndiaye rek daal di dugg ca géew ba caakar caakar xoola cokos cokos yi moom nag non Viviane ëppi feem ci jigéen di xoola bu ku ciy jaay ami fem Viviane la ëppi feem Viviane dafay ami feem Viviane daal di cokos cokos si fecc feccam yu yu yu style yooyu fecc fecc yu style yooyu noo affaire bi neex non encadré sa doom dafa neex am complicité ak sa doom ba pare ngeen déggoo yéen ñaar nuroo dañoo déggoo ba nuroo Viviane ak ak ak Zeyna dañoo déggoo ba nuroo pa Philippe ñëw di may ji bi Dramé pa nga def gara bu bam <laughs> bu américain bi sama américain bi sama américain bi de ay garaam bu lay maye taay yi moo coofe kaay yal na yàlla may soxna su baax su mel ni sa yaay waaw te dala koy may ndax am ngeen éducation de base yaru ngeen teey ngeen dal ngeen pa Philippe bu la neexoon nga ne Viviane sama yaay nekk ci réew mii di dugg di génn di dugg di génn di def ay toj-toj waaye defoo ko nee naa la xoola Pa Philippe a ngi dal teey civilisé set am yar am respect réciproque car masha Allah sama xaalis yi na xale yi daal yàlla bu leen cat toog wax dëgg fa yàlla seen yaay encadré na lañ am nañu éducation de base ba pare seen yaay encadré leen nee naa la Coura Macky ñëw indi ay xeetu teraangaam ay xeetu baax baax xam waxaat fa wax jur rafet wax dëgg Coura Macky man bu ma la jàppoon benn dama lay jàpp fukk parce que téeméer ndax man nee naa la ku bëgg Viviane rek dama lay bëgg man ku bëgg Massa sa Dieye Fatim Penda ak Mañaan sama waa ji man dama lay bëgg daw ma ci yotaan donc Coura Macky fi nga nekk nii moom mi ngi baax wax dëgg fa yàlla yaa ngi belli di naay def sa grand bu rouge nag jaagar jaagar ñëw ak lu lunette lu lunette moom du ko fàtte fenn <laughs> waaye samay xeetu lunette tamit lan la ah sama jëkkër nopp na ma de man tamit maa ngi belli di naay de waaw kay Moussa gaawal jóge France rek ñëw ñu felfelaale sa nekk loolu neex na <laughs> nee naa Sénégal gi ñu nekk nii ko amul ku la nopp demal ga wuti ko lan te boo ko amee de ka surveiller xale yi de ah. Hmm. xale yi dañuy nangu jëkkëru jàmbur nag a tout moment mun nañoo jox sa numéro sa jëkkër numéro téléphone di ko woo ci suuf bu dee jëkkër ju ñakk fayda xam nga góor ñi am na ñoo xam ne dañoo am personnalité dignité Faat mbake nee naa bu ma jógee ci Zeyna ak Viviane damay ñëw ci kan Faat Mbacke yaayu bébé Fanta xoola moo génn wax ay bal ne na ko nga jël sama jëkkër di ko a jeeru di ko doxaan futteeku ba set di ko charmer waaye kaay ma wax leen nag gis nga àddina looy ñaan ci yàlla ñaanal jëkkër ju respecté ku la fonk ku la safoo ku la faale ku la bëgg ba pare yëg la gis nga àddina looy ñaan ci yàlla ñaanal jëkkër ju respecté ku la fonk ku la safoo ku la faale ku la bëgg ba pare yëg la respecté ak réciproque gis nga jëkkëru Fane Mbacké ji a ah, bu dee li Fane Mbacké wax dëgg la nee naa la xaritam ba daa dem di ko charme waaye xale bu góor ba da ko ne génnal ca biti woo Faat Mbàkke ba mu ñëw mu mu bàyyi ba Faat Mbàkke ñëw mu ne ko kii du sa xarit jigéen ñi yéen a féroce charme jëkkëru jàmbur lan ngeen ciy gañe lan ngeen ciy am lan lañ leen ciy fay yow yaa xayti bu laanaa looy charme jëkkëru jàmbur tamit ah bàyyi leen xale yi ñu sëy nag bàyyi leen xale yi ñu sëy ndax nee naa la am na ñoo xamante ne yàllaa def ñu bëggante ñoom ñaar boo ca duggee rek danga cay ñaaw te doo ca jëlee dara ndax yow tey jëkkëru Fane Mbacké ji nee naa la tey bu fekkoon ne góor gu ñàkk fayda wala ñàkk personnalité ak dignité di génn ak yow ci suuf te kenn du ko yëg ndax loolu nag am na fi am na fi ay xale yoo xam ne ñu ngi génn ak jëkkëru jàmbur te kenn xamu ko waaye jigéen ju ko ci def sa personnalité ak sa dignité wàcc na ndax góor moom amul dara lu muy perte wante yow jigéen yaay am looy bañ sàmm sa ngor ngor bu jeexee ci yow desetoo dara mel leen ni Massa Issa Dieye Fatim Penda ak sama waa ji nag rukk dëkk dëkk bi ba mu mel ni suul ak bagañ e ala kama sala naaxira atoy sa sabali bref nee naa la Sénégal dañoo saytaane fi mister rambaaj parce que euh, Pape Cheikh Diallo dafa posté benn vidéo boo xamante ne yàgg na ñu jël vidéo ba monté ko mooy vidéo boobu kii di woy dégg nga naan national Sénégal bàyyi leen nit bu defee dara ngeen bëgg a jël di nit di ko méngale ak moom mais ku nekk am nga sa sa sa am nga droit savourer sa mbëggeel sa kii sa cofeel sabure sa mbëggeel waaye savourer sa bànneex waaye savourer sa mbegte ak bànneex ku ci nekk am nga ci droit ku nekk am nga droit réew mi ñu nekk nga wax li nga bëgg a wax c'est l'essentiel daal xam nga mooy lan bul tudd turu jàmbur ndax diffamation moom man moom jàngal nañ ma diffamation ca cybercriminalité ga man moom turu jàmbur wax dëgg fa yàlla du ma nekk du tudd turu jàmbur sama yoon nekkul ci kenn waaye daal dinaa wax li ma bëgga a wax nit ñi bàyyi leen nag nit ñi def seen vidéo ba pare ngeen dugg ca commentaire ya di fa bind nit man moom bu ma kenn bindalatil yenn nit yi nag wax dëgg fa yàlla ndax nit nag dangay xam sa bopp man damaa xam sama bopp xam nga man maag ma say sa jey Fatim Penda ak Mañaan ñoo yem man damaa xam sama bopp yéen ñuy bind ci commentaire yi dee xam li ngeen di bind am na tur yoo xam ne bu leen di ma ko fa dugalal nag wax dëgg fa yàlla neexuma nee naa la waaye Pape Cheikh daal mu ngay calaan si di felfalaa sànneeku nee naa leen day dund ci réew mi at yu bëree bëree bëri deewagul yéen a ngi koy yéen a dee waaye demagul bougeegul meetar dina dund ay santaan wi santaan wi santaan santaan ba fekkee set setaati Zeyna waaw ndax Pape Cheikh Diallo nag daa bokk ci Viviane Pape Cheikh Diallo dafa bokk ci Viviane te ñun ku bëgg Viviane ñu bëgg la ñun ku bëgg Viviane ñu bëgg la en tout cas Pape Cheikh daal am na mbégte ak bànneex ndax nag kan lañ takk ñu ne doomu Viviane te Viviane ku ne Viviane ne Pape Cheikh Diallo ñoom ñaar ñaari ŋàddu guro lañu boo ci xar rek benn la donc Sénégal nañuy bàyyi nit ñi ñuy ànd ci jàmm ak salaam ndax lu dul jàmm jàmmaa ko dàq nee naa la bu ma jógee foofu nag damay ñëw ci Alla Diop ci wax jooju nga xamante ne moom la wax ndax dama seetaan émission wu Momo Nana ak Noreyni mais Alla Diop nag wàccee nga sa personnalité ak dignité képp ku la buggoon ci àddina rek cofeelam ak mbëggeelam wàññeeku na ci wax ji nga wax gis nga góor dangay nekk góor yàlla mel ni Mario Mbaye mii sax nga xam ne ñu ngi ko doon xaar ci gaalu xaj gi sax waaye fekkuñu ko fa muy lekk li nga def ñaaw na man ànduma ceeg yow ñaaw na man dama la bëggoon nga nekk sa nga nekk koo xam ne dama la respecté woon mais danga nga wàññi lu bëri parce que yow boo génnee journaliste yi di la laaj nga naan ay kooku maire la di kenkeñ yi di ree xam nga yooyu rafetul bàyyi leen di déstabiliser nit bàyyi leen di dégrainer surtout jigéen jigéen da nga koy suturaal ku ci nekk am nga sa yaay mbaa nga am sa tante mbaa nga am sa sœur mbaa am sa grande sœur kon looy wax ci jigéen rek na nekk lu rafet boo génnee ñu lay laaj ci nit boo ca munta wax wax ju ñu neel ah wax dëgg fa yàlla bu ma sañoon ngeen laaj ma leneen waaye nga naan kooku meer laat di kex-kexe yow sa jabar dàqul bébé Eva sa jabar dàqul bébé Eva te gënu koo fere gënu koo nekk xale bébé Eva eh, bébé très très très waaw te lay def day liggéey bàyyi leen bàyyi leen ñu leen di dugal ci yenn gaam yi ngeen di ci dugg yooyu baaxul rafetul yow góor nga loolu jigéen sax moo ko war a def mais pas góor wax dëgg fa yàlla yow góor nga waroo dugg ci détail yooyu en tout cas maa ngi lay euh, ñaax di la ñaaxaat ndax parfois commune euh, erreur de communication day am parfois accident de communication day am waaye bu amee rek nañuy xool nañ koy defaraatee rek ba mu daal di rafet ndax nee naa la àddina dara jaru fi ñaaw te nit boo amee sa nitu démb nga bàyyi ko man de sama ay nitu démb bu ma la bàyyee nit ñëw di ma la laaj damay wax ci yow lu rafet parce que wax day dox di dem te xamoo fu muy yegg lu rafet laay wax ci yow bu ma ko mënul ma téye sama bopp jàpp sama njàmbur waaye du ma wax ci yow lu ñaaw ndax nag koo gis muy wax ci nit lu ñaaw ragalal kooku defante leen lu baax waxante lu baax surtout nit boo xam ne bu dee benn yoon sax defal na nitu démb nga bàyyi ko man des sama ay nitu démb bu ma la bàyyee nit ñëw di ma la laaj damay wax ci yow lu rafet parce que wax day dox di dem te xamoo fu muy yegg lu rafet laay wax ci yow bu ma ko mënul ma téye sama bopp jàpp sama njàmbur waaye du ma wax ci yow lu ñaaw ndax nag koo gis muy wax ci nit lu ñaaw ragalal kooku defante leen lu baax waxante lu baax surtout nit boo xam ne bu dee benn yoon sax defal na la ko lu baax bu dee benn yoon sax ah wax dëgg fa yàlla seq ngeen ko teraanga nit kooku jarul nga ko yàq Sénégal bàyyi leen di yàqante nee naa la yéen ñi am bag félicitation encore une formation spéciale xam na jàng ngeen ñoom ñoo jàngul la ma leen waxoon rek laa leen di wax jàng yéen a jàng ñoom ñoo jàngul ku ci jàngul jarul ngay dem di xooli bag euh, résultat bag ya yoneel bul dem di di di di tuutal sa bopp ndax boo demee di nga fa yuuxu di fa jooy te yàlla moom def na li muy def ba pare ndax nee naa la yàlla aji ñiy liggéey la àndal waaye aji ñiy jàng la àndal ku ci jàngul nag ba résultat yi génn nga bëgg am par la force doole baab loolu mënut a nekk de déedéet ñi jàng nag yéen laay wax toog leen seen poocu ndey yi jàng liggéey bu dee jigéen toog leen seen poocu ndey yi jàng liggéey wala ngeen dem ut liggéey bu ngeen def mu apporter leen bu école ubbi waatee ngeen jënd seeni fourniture bàyyi leen góor ñi ngeen topp góor ñi gis nga góor moo la mun a yàq moo la mun a defar te gis nga góor a ngi bon bon goo xamante ne boo seqeek moom muy neex bu paree ci yow pare na ci yow keneen lay xooli jiwaat bu paree ci yow moom pare na ci yow moom keneen lay dem xooli waat kon yéen ñi ngeen xamante ne yéen a am bag félicitation maa ngi leen di félicité mention spéciale di leen wax ne nag toog leen seen poocu ndey yi jàng liggéey jàppale seen yaay wala ngeen dem wuti liggéey bu leen di apporter xaalis ba nga xamante ne bu école ubbee di ngeen mën a jënd seeni fourniture ndax jamono dafa metti nee naa la Maria Sine may sa biige Maria Sine maar sa kings of gaynde gi mu ngay def ay tournéem yu xe eh, waalee jantale mën a sañse style bi mu génne de nee naa la boo gàttee di duguñ duguñuy daagaj daagaj mbala nga pata sa biir bi rësul dafoo sport bilaay style ba du la jàpp en tout cas félicitations Maria Sin may sa biige Maria Sin Mar Seydi Soxna Aïdara Karara fan si faramaareen yeeg ñëpp ñu ngi lay xaar daal Sénégal wax dëgg fa yàlla rukk nga Europe ba mu mokk ba mel ni suul ak bëggëj sa fecckat yi macha allah mention spéciale à njàpp zoo Eh, Ndeye Ndiaye bànn yaa waaye sama xarit boobu awa awa moom dafa dëgg fa yàlla awa awa dafa dafa sama préféré moom dafa mën a fecc wax dëgg fa yàlla waaye Ndeye jaay tamit daa bëri ay feem en tout cas daal mention spéciale a yéen ñooñu nga xamante ne yéen a ànd ak waali maa ngi gis Benjamin di jouer ca clavier ba ak benn tubaab xam nga ñun tubaab yi dañ ñoo wax jox bopp temps yi temps yi tubaab yi macha allah yàlla buñ ca top di ñaanal Maria Sin Messi Bigué Maria Sin Mar ah yàlla musal defal ko jàmm ak salaam sutura gudd fan gu ànd ak wér bu leen seetaan vidéo bi mu neex a neex a neex ba ngeen bañ a ñëw le soleil añ si gambas crevette calamar brochette de lot poulet frite poulet yaasa coof lépp lañ fiy jaay Cameroun sigaal ah, langus waaye nee naa la Cameroun yeeg yépp foo woote ñu ne la amul ndax lan Viviane jënd lépp xewam mi eh, Zeyna loo jàppoon sa yaay benn jàpp ko téeméer ku la bëgg la sama vidéo xoola bere fag yaa xayti mulaanaa waru koona am a ah, doy na